di wax nag liñ fi indi tey mooy programme bu am solo xam ngeen le président de la République bi mu ñëwee bi ñu gisee ne si biir Sénégal dafa bëri ay abri provisoire abri provisoire yi nag sama mbokk maire yi rek en général ñoo koy def dañu am ay élèves cohorte bi ñëw na école bi tijji na amuñu salle bu bees bëgguñu xale yi toog seen kër ñoom aussi ñu jël seen initiative defar seen abri provisoire mais loolu li ko tax mooy que chaque année dinañu am lu mel ni quatre mille élèves yu bees ñooy ñëw ci seey loolu bari na loolu laaj na ñu construire ay salle yu bari loolu moo tax président de la République nee na na ngeen jël projet bu am solo depuis 2018 lañ ko lancé 120 milliards la def ci loolu pour mun a leen remplacer nee na bëggatul ñu am abri provisoire ci biir Sénégal donc commencé war nañu loolu bu bees bi bobu presque jeex parce que ñu ngi ci 94 légui ñu ngi fii si biir Louga di lancer programme bu am solo moy le lot 3 et lot 3 bobu nak dina tax ne xam ngeen né bi biñ ko commencé yagul en 15 jours ñu paré bâtiment am nañu 1500 salles ñu wara a defar am nañu ay murs yu bari ñu wara def ci Sénégal gëm naa ne avant rentrée scolaire bi partout ci bir Sénégal ñoom dinañ wàññi lu bari ci un abri provisoire de li wax également pour que sénégalais yi xam suñu waxé abri provisoire en général dañu avons ne rek salle bi la non non non Nous ñu ngi ci biir salle bi mais ñu ngi aussi ci environnement bi avons donc ñom dinañ def ay salle yu baax yu melni mais laaj encore ay murs 58 000 mètres linéaires ñom sommes lo kessé 78 000 mètres encore l'eau Benen l'eau et le lot 2 également signé donc ay salle oui, également et en même temps dinañu équiper salle table banc également ay bureau les blocs du administratif bloc administratif bloc d'hygiène parce que y a une école une école ci Sénégal boo am classe ou des classe rarement il y mur des murs loolu ñun dinañ ko def rarement ngay gis ay bloc d'hygiène ay toilettes et rare même le directeur des fois a am bureau donc loolu yëpp la ñu def ci programme bu bi le programme de remplacement des abris provisoires donc programme bu am solo et gëm naa ne comme l'autre trois ñoom seen technique nii la seen vues 28 salis, ñu pour le bonheur des populations du Sénégal maintenant si nous avons encore un programme moy le lot 2 comme ñent la won Ben bi presque paré na lot 3 bu ngi démarrer Le 2 bi également paré na inshallah dans deux mois ñom aussi dinañu dem ci biir Sénégal à peu près pour 1700 salles sans compter également le nombre de murs et mu dess ben lo moy le lot 4 Bobo aussi ñu ngi wut financement bi su si yàlla dans 8 mois Nous na ñu donc di leen wax ne que éducation nationale éducation de qualité la ñu so waxe qualité nak def laaj ay intrants yu bari def laaj ay enseignants yu bax ñu former len ko ils sont dans de bonnes conditions moy réponse du président joxe parce que yegg nañu laaj que enseignants yi nañu dans de bonnes conditions commencé nañ ko def premier élément deuxième élément ñu am environnement scolaire bu baax ay murs ay salle de classe ay écoles yu yaatu des arbres yo xam directive la won donc gëm nañ ne ko suñu defé lolu comme depuis trois ans ici, si biir Sénégal ñu ngi nous li une dynamique de réussite résultat yëpp baax parler depuis trois ans CFE entrée en e baccalauréat donc il faut que nous maintenions l'eau pour que cette dynamique de réussite nous mun ko installer au Sénégal L'eau, moo tax nous ñu ngi abri provisoire nous ñu ngi formation des enseignants nous ñu ngi équipement bi ñu ngi le li le numérique parce que àddina bi numérique la là, moom aussi nous ngi koy au Sénégal donc je vous dis que nous, nañ fii si Louga kontaan nañu di féliciter l'inspecteur d'académie de féliciter principal du IFIA, le gouverneur les élus Je vous wax ne en tout cas temps taxoon ñu choisir Louga rëccuwuñ